yëkkati naa di yuuxuwaat kaddu dëgg yi fàttaliwaat. émission ci ngeen bokk. xale yu jigéen ak ñoom soo bëggee def reportage ci xale jigéen yi nga xam dañuy jaay seen bopp faaw nga génn comme ñoom. jamono ji nag guddi na lool maa ngi nii ci oto ànd ak benn chauffeur. Ah, mais yéen dégg naa yéenay jëflante ak ñoom nag parce que euh, parfois da leen di yóbbu bu ngeen dee ba ci biir bu ñu amul xaalis xam nga ñu simmeeku ci oto bi ngeen def ak ñoom. waaw loolu dañuy dund loolu moom. mais ran ci buntu baar yi bu xale jigéen defee li def ba pare ngeen jël leen yóbbuwaat leen. waaw loolu dañ koy def. ndek yoo ni ngay demee ca darar ga xool xar ma la neex nga waxaale jàpp yeew ci buum ca baat ba yóbbu sa kër ndek yoo noonu la amee ci xale jigéen yi fii ci ndakaaru am na ci yenn barab yoo xam ne boo fa demee xale jigéen yaa ngi fa taxaw di luyee seen bopp soo bëggee fay dem yóbbu fa la neex jëflante ak ñoom bu la neexee sax nga fanaanoo ak ñoom ba bët set lépp ñu teg ko ci nga fay leen prix bi ñu bëgg nga fay leen ko ngir ñu mën a fanaanoo ak yow te nekkoo seen jëkkër nekkuñu sa soxna lii am na ci Ndakaaru Njaay yenn ci ay xale jigéen yi ñu dajeel ñen na ngi nii ngeen di bëgg a dégg. yow mais 3 heures moom dafa gàtt. dañuy ndax da ma wóorul ba tax nga bëgg xëy na ma fi bàyyi sama carte d'identité soxna si man dama la ñu rubante ah. waaw bànn ma ko waaye ma ko ragal. naa ko mos a yàlla amul tool ah, sama gàllankoor bi mu ngi foofu. dañuy dem ba 6 heures. kon la ba 6 heures ma. te damay féer de xanaa ko sa copain la. léegi alors. fanaan bi vingt mille. fanaan bi. vingt mille. baa li ngay def wax ah, rek. bu la neexee ngeen ñu ñaar dërëm. yow yaa ngi ragal de. ragalu ma de. Hmm? non damaa gis ngay xool ni firil waaye nañu waxtaan xam nga man. kay firi naa ma firi toon ni kon ma woo ma ñëw toog. d'accord léegi léegi man. Ah. man man damay doog a ñëw ci milieu yi. Ah. du ma la nëbbatu. dama miinul xeetu cigarette geeg euh, kii bi sax moo tax ma génn. Ah. mais dama bëgg wax dëgg yàlla dund sama dund quoi. Hmm. xam nga euh, man nag ñëw nga sànq ni ñëw nga sànq gis naa la te yow laa sentir quoi pour nekk ak yow am na ku ma jot a waxal ma leen ma passe sans mais man parewu ma loolu fanaan laa bëgg xees comme yow man xam nga xees laay wër lan nga wax beneen dafa bari de trop sax trop trop da nga yor nekk jugati ci ngeen bokk